ça va noo def sëñ bi. ça va fi maa fi soxna si maa fi jàmm baax baax. bi nan la. Mor Faye. Euh, Mor Faye ñu gis ne que suba incha allah le 4 avril di feetu indépendance bi ñuy feete chaque année euh, naka nga gisee suba feet bi ñu ko nar a feete. avril bi waaw suba le 4 avril moom wax dëgg yàlla ak xew-xew fi amoon nii nii nii ni ko xew-xew fi amoon nii. man pour man am na lu amoon lu gënoon am importance 4 avril bi nii gars yi di ko di ko def nii am na lu gën a importance waaw muy xeexee fi amoon nii waaw xeex yi am ay dee am fii ñaata moor ñu ngi am fii nii gars yi waxuñu si waaw ñaata nit lañ si yàq seen alal ñaata nit moo si am ay moor te gars yi li loolu yëpp ñoom daal seen bët ñi ko lépp rek ko teg si affaire 4 avril pour mu am waaw ñoom lijjantiwuñ doomu aadama yi si luñ nekk si luñ ñëwul waaw amaana ñi ngi fii caravane bi di yàq ay xaalis am ñoo xam ñi ngi fii nii buñ amuñu luñ lekk wóor na yàlla buñ toogee suba buñ mën a toog xëy suba bu ngoon jot duñ lekk waaw man pour man caravane bii nii war woon am si année bii nii war nañ ko bàyyi ba beneen année mais pas bii nii ñu ko def nii waaw sama gis-gis quoi waaw. noonu ñoom sax dañoo invité ñi nga xam ne ñoom ñooy waa yeewi askan wi euh, pour ñu ñëw participer ci 4 avril bi ci feet bi mais ñoom nee nañ duñu dem. ndax euh, booy feete indépendance day fekk nga am ko. voilà waaw man man ma doon loolu sax man même man mii man Sonko 100 pour cent la mais bu même même man ñooñu bu ma déggoon woon ñoom tamit naan carrément bu leen dem dem bi amul sens. car avenue ñun amagul indépendance ba léegi ñun bu ñu amoon indépendance suñu justice bi li ñu nekk def des dëkk bi nii duñ ko def ñaat nit lañ fi jàpp si affaire yoo xam ne defuñu dara ñoo xam ne defuñu dara ñaata. kii ñu kii ne yor ki am moom clinique euh, suma. docteur Babacar Niang Babacar Niang mhm. la moo tax ñu jàpp ko jàpp ñu ko jàpp ñu teguñu ko fen ñaata ñu leen fi arrêté ñoo xam ne seen yoon nekkul si affaire bi ay booy ay kii ay élèves ay professeurs ñi fi ñu téye yooyu yëpp waxuñu si ñoom jël seen affaire yëpp daal def ko si affaire indépendance bi. waa PASTEF lu ñu def dama leen si remercier bu baax waaw tax man moom bu doon man mi man du ma dem waaw mu teg sama tànk waaw amul sens quoi pour man. Euh, ban message ngay lancé euh, président ndax tey war na wax incha allah bu 20 heures jotee euh, ci jafe-jafe yi nga xam ne askan wi ñu ngi koy dund. waaw Macky Sall daal instant bi daal moom fi mu toll nii moom message bi ñu koy lancé daal mooy lenn mooy affaire injustice bi ne dëkk bii nii mu wax si quoi waaw bàyyi affaire yi mu sedd affaire bi ñu bëgg a nii nii nii nii day indi fii beneen problème après beneen tension lay indi waaw. xam bii passé ñoo def ni affaire nekk si jàmm mais bu ñu bëgg indiwaat beneen problème rek jeunes yi dañuy fippuwaat te boobaa tamit mooy loolu day indiwaat beneen problème ci dëkk bi. man maa ngi tudd Modou Modou Fall Modou Kara. waaw sant yàlla rek parce que nit moom sa bisu indépendance bu dellu see moom loolu feet la boo xamante ni yaakaar naa ne feet gën a koo rëy ci ci ci maanaam ci ci nation quoi ci république kon nag duñ def lu dul kontaan ci di yàlla yóbbuñu si ak jàmm. ñu dugg ci ak ak bisimilah rahmaani rahim waaw génn ci alhamdulilah ak yeneen feet yi di ñëwaat mu fekkaat réew mi ci jàmm incha allah. voilà ñu gis ne que waa yeewi askan wi euh, dañ leen invité woon foofu ci feetu indépendance bi waaye dañoo bañ ne duñu duñu dem euh, parce que gis nañ ne que ñoom taxawaay bi ñu taxawee amuñu indépendance fii ci biir réew bi ba dem di ko feete ji. waaw non loolu moom c'est tout à fait normal parce que ñoom ci seen rôle lañ nekk quoi donte nag bi feetu réew mi ku nekk ci pouvoir ñëpp ñoo ci bokk yem kon rafetoon na ñëpp teew ci mais nag boo xoo boo xoolee xeetu politique bi am léegi Sénégal bokkut ak bu njëkk bi fi amoon ndax bu njëkk xëy na opposition daan na am mais daan na rafet ci diggante opposition ak état ba nga xamante ni genre fête yi bu amee maanaam yow tu es obligé yow en tant que opposant nga dem teew ci mais léegi nag ni mu demee Sénégal actuellement nii dafa xaw a compliqué parce que boo seetloo opposant a buntu xataal benn côté quoi te dafa xaw a metti xam nga waaw ñu ngi leen di tëj ñu leen di jaay doole xam nga moo tax quoi c'est normal ñoom tamit euh, ñu am taxawaay boobu te loolu tamit wax dëgg yàlla ndax démb man maa ngi gis Mimi ture mu ngi def benn post di wax ne moom invité nañ ko mais du ci teew waaw parce que li tax du ci teew joxe na ay argument am quoi ndax jàpp na ni président Macky Sall warul def waru demander troisième troisième troisième mandat jàpp nañ te maanaam mandat député bii dañ ko foqar ñi ci moom jaay ko doole. kon mu jàpp ne loolu ay injustice la yoo xam dañ ko ko teg kon c'est tout à fait normal moom bu nee demuma nit ñi dañ koy comprendre ci benn côté ndax du bëgg a jaxasoo xëy ne peut-être ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko ñoo ko invité quoi. est-ce que jàpp nga ne ñoom waa Yewwi Askan Wi am nañ raison maanaam wala euh, ñu ngi ci dëgg ci bañ a dem fi nga xam ne foofu la ñu dem ndax ñoom gis nañ ne que dëkk bi euh, amul amul amul liberté maanaam bi nga xam ne war nañ ko am wala indépendance bi nga xam ne ñu ngi koy woote amu fi. waaw liberté nag moom àdduna nii la mus a doxee yow di nga nekk ci liberté nga nekk sa jaamu doxi soxla keneen mi ngi nekk ñi ngi ko téye mi ngi caab mi ngi ko féete ginnaaw kon àdduna noonu la mus a doxee ñi dañuy nekk ci liberté ñi bañ a nekk ci liberté mais xëy na nag maanaam ñoom li ñuy dund ci seen biir ñoom ñoo ko xam xëy na dëgg sërëx yeeg maanaam comme li gars yi di wax président Ousmane Sonko mi nga xamante ni tey jii maanaam moom mooy chef de l'opposition loolu la yàlla dogal ba pare moom moo mu nekk ci yeewi askan wi jiite Pastef bu fekkee ni maanaam mi ngi jàpp ne procès yi muy dem nii nii yëpp ay procès politique la du procès judiciaire kon ñoom dañuy jàpp ni ba léegi nekk amuñu liberté quoi comprendre nga. kon nag maanaam loolu ba léegi da nga leen koy nangul ci benn côté ñu seddaan ba xam lu yàlla di dogal maanaam ci xëy na ndax danañ valider candidature am am loolu lépp ba léegi da nga leen koy nangul nga toog nga seddaan leen parce que xëy na seen logique lañ nekk nag ndax si milieu politique lañ nekk te instant bi cas bi dafa xaw dafa xaw a danse ndax maanaam ñu ngi ne ñu ngi ci maanaam presque à onze mois ou bien dix mois des élections xam nga uh-huh. ñoom seen rôle la ñuy nekk def seen politique uh-huh. waaw mooy loolu noonu quoi. loolu président Macky Sall war a def tey euh, euh, déclaration bu vingt heures jotee incha allah est-ce que jàpp nga ne que euh, wala xaaral ni ngeen ne dina wax lu leer ci troisième mandat parce que gis nañ ne que boobu ba léegi amuñu ci lu ñu leer. waaw troisième mandat bi moom leer na. waaw loolu moom xëy na peut-être maanaam. ndax dama seetaan benn vidéo mu ne mu ne ab Ablaye Wade président Ablaye Wade troisième mandat mënoo ko def te génnal ci génn ci ñi la ciy jéem a dugal bis bu affaire bi méttee ñoom ñoo njëkk a daw. kon nag moom moom mi nga xamante ni moom moom maanaam moom la gars yi fal. moom la sénégalais fal. mu nekk président la république. soxlawaat pour def troisième mandat ñëpp xam nañu nguur dafa neex. mais maanaam moom moo ne maanaam problème boobu noonu résoudre nañu ko jeex na. amul quinquennat amul septennat deux mandats la nul na peut exercer plus de deux mandats consécutifs kon amul quinquennat amul septennat moom waxoon na ko leer na kon yaakaar naa débat boobu kuloo na. léegi nag ay alliés ñi nga xam ne dañoo nekk bokku ci moom di politique ñoom ils ont le droit parce que ñoom APR lañ bokk am nañ droit ñoom seen candidat ñu ne Macky Sall mooy suñu candidat mais après. man jàpp naa ne man président Macky Sall du mos taxaw di renoncé wu ci loolu mu ndax wax na ko ay xale dégg ay mag dégg ñi ànd ak moom dégg ko ñi ànd ak moom dégg ko mm-hmm. kon man jàpp naa ne Macky Sall du mus a taxawaat Sénégal di demander troisième mandat mm-hmm. man loolu man loolu laa gëm te jusqu'à preuve du contraire man gëm naa ne Macky Sall taxaw demande troisième troisième candidat ñi ànd ak moom nag am nañ droit bu taxu ñu ne Macky Sall moo suñu moo mooy suñu candidat te conseil constitutionnel tamit jàpp naa ne bu fekkee li Macky wax mm-hmm. actuel ministre de la justice wax ko ne maanaam problème boobu noonu tëj nañ ko verrouillé nañ ko bu fekkee ne loolu moo réel man jàpp naa ni euh, troisième mandat moom yaakaar naa ne Macky Sall du ko du ko du ko du ko demandé quoi incha allah. Modou yaa ngi si jàmm. yaa jàmm baax kay. ah effectivement euh, wax na dëgg ndax maanaam tey ñun su ne dañuy feetu ah mais ñun mënuñu nekk barki démb si ay problème ay jafe-jafe tey ñu bëgg a woote ay feet tey tey tey mais quand man man loolu man ànduma si man gis naa ne man loolu amul sens daal feet bi lu ko ëpp sens mooy fi mu ne nii ñu fexe li jël suñu réew mi ñun ban tege si aw yoon quoi. man pour man moo ëpp pour ay nekk fii ay na dañuy feetu quoi instant bi moom xalaat naa loolu moo ëpp sens daal li jënt ba teg ko si yoon daal moo ëpp sens ay nekk fii di feetu daal waaw mi ngi noonu buñ ne indépendance mooy maanaam euh, nit koo xam ne dafa moom boppam euh, ñu gis ne que waa Yewwi Askan Wi ñoom nee nañ carrément euh, gis nañ ne que dëkk fii dëkk bi fii ñu ci ëpp moomuñu seen bopp maanaam gis nañ ne que liberté bi nga xam ne waroon nañ ko am amuñu ko moo tax waruñu woon féete li nga xam ne moom mooy indépendance ah loolu xañ na ñoom état ñoom ñoom la intéressé mais ñun daal ñun askan wi fi mu ne nii ñun moom defe naa tal nañ lu lu ay feetu daal ñun daal fi na nii lekk ak naan ak liggéey moo ñu gën a ñor comme ay feetu daal instant bii. waaw man de pour moment man loolu laa gis waaw man de instant laa gis ndax gis nga ñun ñuy toog ñëpp ay chauffeur lañ amul ku si am xëy wala ngont li ñu doon liggéey muy wàllu secteur transport ñun léegi instant bi liggéeyatuñ si ñeneen ñoo koy liggéey ay moto ñoo koy daw. ak ay application ñoo koy liggéey léegi ñun ñoo ngi nii xëy dañuy xëy tëdd ba ngoon jot dépasse bi ñu yóbbu suñu kër sax amuñu ko ah. waaw kon ñun benn instant bu ñu bu nee ay feet ñun dañuy jaaxal ñun ñun moom ñun loolu suñu yitte fi mu ne nii daal ñun daal li suñu yitte mooy liggéey fexe luñ mën a yore suñu kër yi daal moo ñu gën a ñor pour ay nekk fi day feet daal ñun mais loolu laa gis jàpp nga ne instant bi waroon nañu nekk ci leneen mais bu ñu nee indépendance nag maanaam ñor na képp koo xam ne sénégalais nga ndax mooy euh, fête bi nga xam ne dañ koy féete muy 1960 ci lañ euh, ci lañ amoon suñu indépendance mais ñu ci ëpp nee nañ moment bi euh, nekkul loo xam ne lu ñu waroon mën a def la parce que gis nañ ne que xëy na indépendance ak liberté bi ñuy woote ñu ci ëpp amuñu ko fi ndax gis nañ ñu bëri dañ leen arrêté te ñu ngi ci kaso bi. waaw actuellement man loolu lu ma siy wax bëriwul mais maanaam damay gis ne bu fekkoon ne tal nañ ko daal man si lay gën a neexee daal. bu fekkoon ne ñun ñoo ngi lekk ñoo ngi naan ñoo ngi liggéey ah man gëm naa bu boobaa man dina neex daal mais instant bi nii man pour man daal man jaru ko woon daal waaw man loolu laa gis man. ban message ngay lancé pour ñu jàppale leen yéen chauffeurs yi. waaw ah, message may lancé pour ñu jàppale yi mooy li nga xamante ni dafa dugg si suñu liggéey te bokk si woon muy application yii nii ak ay moto yi nga xam ne nii fayuñu assurance ñu dara di transporter li ñu waroon a liggéey ñun ñu xëy di toog euh, application yi nga xamante ni ñu ngi daw si réew mi. Euh, te bokkuñu woon si transport te ñun amaluñu benn njariñ ñun kayit bu nekk ñoo ngi koy fay taxi li ñu doon fey ba léegi amul lu si wàññeeku waaw te ba léegi ñun mënuñu fexe ba gisat suñu bopp si métier bi ñun mënuñu si jënd ceeb mënuñu si jënd diw mënuñu si am sax liggéey bu normal waaw ku la jox oto tey bu subaa bu ko neexee mu xëy ko nangu nga xëy toog amul embauchement amul dara kon ñun dèjà ñun transport moom ñun defe naa ne moom gën ku dee rek ñun ñoo la gën a sonn daal instant bi moom ñoom ñoo gën a si yëpp daal waaw loolu laa si amoon si li ma wax ok Euh, Mouhamadou Seydou Diallo. Ah, waaw dëgg la war nañ ci mën a feete indépendance parce que indépendance maanaam mooy moom sa bopp xam nga tubaab bi def na fi presque quatre siècles ñu coloniser ñu ñu jóge fa dem si esclavage après esclavage colonisation bi ñëw bon bu ñu demee ba ñu moom suñu bopp même su nekkee tur la sax ñu moom sa bopp dafa neex. en 1960 ñu jox ñu indépendance si Senghor ak Valdiodio njaay ak Lamine Guèye ñu jot suñu bopp ginnaaw bi De Gaulle jaaree Guinée jaar yeneen dëkk yëpp. après ñëw ba Sénégal laaj ñu ndax dañoo bugg indépendance ñu ne ko bien sûr ñun indépendance la ñu bëgg mu wax euh, euh, phrase bu siiw boobu vous la voulez la ñu daal di ko jël ñoom mbay Diop euh, Mbaye Jacques Diop yàlla na ko yàlla yërëm yàgg na yëkkati pancarte di wane manifestation yooyu saa yu fête indépendance ñooyu kon indépendance moom vraiment war nañ ko mën a féete quoi gis ne que président Macky Sall dafa joxoon invitation waaye yeewi askan bi pour ñu ñëw participer ci feet bi waaye ñoom nee nañ du ñu dem ndax booy dem ci indépendance day fekk nga moom sa bopp. ah non war nañu mën a dem nag indépendance parce que comme que symboliser nañ ko rek euh, war nañ fa mën a dem parce que réew mi ñëpp ko bokk Macky Sall fii la fekk réew mi day dem ba fi réew mi ñoom it fii la ñu fekk réew mi dañu dem ba fi réew mi. kon euh, vraiment war nañu man daal lu ma gisoon lu mu gënoon rafet mooy ñu am représentant. waaw ñu am fa comme que invité na leen daal ñu ñëw su leen invité woon sax dañoo waroon forcé ñëw waaw rawatina nag ba mu leen invité ñu nekk xaalis bi nga xam ne dañ ko utiliser euh, pour defee ko li nga xam ne moom mooy feetu indépendance mënoon nañ ko jël dugal ko feneen ndax gis nañ ne que moment bi euh, dund bi cher ak problème yi nga xam ne moom lañ génn fan yi ñu ci ëpp wala famille yu ci ëpp bu ñu xëyee ndéeg ñu añ sax problème la. loolu moom sunnatullahi fil kawni la wala ntajila li sunnatillahi tahwila dëkk bi su amoon sax lu mu mun mënta dem alal dina am ay pauvre ndax yàlla moo ko day am ay miskin toujours am ñu ñàkk toujours waaye da ngay xam ne nag ñoom dañoo nekk seen rôle ndax dañoo nekk année boo xam ne ne élection yi ñu ngi ñëw dañuy campagne euh, lu waa ji def rek il faut ñu jéem a xool ñu ko ñu ngi ko waxee parce que ñoom it dañu nekk seen rôle waaye fête indépendance wane sa mbégte moom sa bopp koku amul benn dëkk boo xam ne da ko bañ vraiment man daal su nekkoon sama sago daal ñu teew. voilà mbokk yi mi ngi noonu dégg ngeen avis yi nga xam ne joxe nañ ko par rapport ak euh, feetu indépendance bi nga xam ne suba moo war a am euh, ma leen di jaajëfal bu baax a baax waaye di jaajëfal sama caméraman euh, d'ici là portez-vous bien à la prochaine.